naa ci yoo xamante ne. xaaral ma ñëw maa ngi ñëw ci information de. waaw mais xam nga xam nga ma xuus wala ma ma freiné. xam nga fu dañu waxtaan rek. xam nga tey. Hmm. bi may def grand théâtre hmm. Hmm, dañ ko jàpp date bi. ñu dem ba benn moment. jàppoon nañ ne ci un mois mënuñu liggéey grand théâtre man ma gëmoon ne. ci un mois. mën na nekk mën na nekk. parce que àdduna xam nga lan moo fi am. ku man amul ku nu dimbali mo am te nak damay jaar ci occasion bobu sante wa Jolof ak wa Mbàkke dañoo sot parce que grand théâtre bi boko setlo biñ né le mercredi avant samedi bi ticket amatul wa Jolof jënd nañ ticket yépp sa hmm. bopp la yàlla ko ji ticket hmm. ko ji toto ali Ngouille Ndiaye def ci liggéey bu am solo il paraît mom mo jëloon salle bi mo la ko fayal damaa dem toog bureau ma ne ko tonton luy album bi génne ma ne ko man de lenn rek laa bëgg mm-hmm. dama bëgg dem grand théâtre mm-hmm. def nuit du jolof waa jolof wuy si ma mm-hmm. parce que dañ ko daan organiser chaque année mu ne ma loolu rek nga bëgg mu ne am ci saa si mu woo tonton kay si soo ne ko damaa bëgg dat sama jarbaat dina la woo nga wax la dat dat bu mu la wax man maa jël charge te yemul ci loolu mu ànd ceeg man ànd ceeg man ba ci bi bi mercredi hmm. bi ticket amatul ba man samedi bi nit ñi may wo di ma laaj ay ticket parce que bobu non ticket amatul tay tay mom mo ci jouer rôle bu am solo kon Prince la la def ci grand théâtre ñom sa sa label bi nga xamantene tay nyom nyom nyom la nyom defal la album ñom la lañ def exactement ci grand théâtre li ñu def ci grand théâtre bi tay nyom que ne tay ñoo ñoo ñoo ñoo ma nyom ñoo ma nyom nyom ma nyom bu nyom nyom ñu ne sa nyom nyom dem grand hmm. théâtre duñ ma nyom dat ñom ñoo ma nyom dat wax ñu nyom nga pousse dat bi am dafa jege woon. mooy li ma waxoon dañu ne woon ci un mois mënuñu. def gravade. après mhm. yow nga gëm ne mën na nekk ma ne ma ne nañ ko def. mais est label est label aussi bu la waxee loolu est que doo doo reculer parce que. non lépp ci moo dal après Titi aussi mais loolu. loolu bul jàpp dat. Mhm. loolu non non loolu la mhm. waxee dama ne Ibou nañ ko def. yàlla baax na. parce que fii yàlla rek moo fi nekk keneen nekku fi. yàlla moo fi nekk. te lu gëm-gëm boobu ma amoon ci sama xol. Mhm. xam ne suñu borom dina ma ci jàppale. Mhm. ñu am ci ndam. Mhm. gëm-gëm boobu la moo ñëw ba ñu am ci ba ñu am ci ci ci ci ndam. mais am na am na benn période boo xamante ne il paraît dañoo xaw a def ñu toog di la xool parce que euh, man am na ay musiciens yoo xamante ne xam naa leen. da nga doon am problème da ngay ñëw répétition après euh, dóor benn morceau ñaar daw uti. alors que label mu ngi sa ginnaaw am loo xamante ne pour man label moo ko war a gérer. mais tey am na loo xamante ne nii say nit yu est ce que yow tu étais bi ngay bi ngay ñëw ci grand théâtre est ce que vraiment euh, sa xel mu ngi won ci li ngay li ngay def. parce que ñëpp dañuy wax ne même même ay da nim doon woyee xelam bi dalul woon. ah déedéet déedéet j'étais pas stressé au mhm. contraire. Mhm. j'étais dama calmoon ci grand théâtre bobu mhm. free. parce que xam nga lu ko waral. grand théâtre bi. waa Prince Art label la. Mhm. mais tey am na ay nit yoo xamante ne man maa leen xam. waa Prince Art xamuñu leen. Mhm. man maay dem envers eux mhm. pour am li ma bëgg ci ñoom. loolu la rek. mais bi nga xamante ni Ibou Ndour li nga xamante ni moom mooy loo war a def bi ñu war a répété moom dafa ñëw taxaw. morceaux yi nga xamante dañ leen war a changer wala dañu war a changer rythme bi. ñoom musicalement lañ la accompagner ci ci ci liggéey dañ ma dañ ma pour te dire que ne. Euh, contact gu ministre de la de la santé. Mm-hmm.